aw jëbu waral nañu aydan ba tey zakatal fitrati muurum koor wa qadruha te ab kemam maanaam ab tolluwaayam saaxun saa lay doon bi fardi sunnati ci dogalu sunna day ñëw ci muurum koor asaka moom yàllaa ko farataal tudd ko ci alquran ay yoon yi woon muurum koor nag yonent bi ci boppam moo xamle ne lu ñu santaane la lu ñu war a def la te jullit ñëpp koo xam ne tëliwoo ko rekk warugar la ci yow ibnu xamar ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sadaqatul fitri fi ramadan alal muslimin kon muurum koor warugar la ci képp koo xam ne rekk mën nga ko bu nee nag ñépp la war góor ak jigéen gone ak mag gor ak jaam muy wéy daañu leeral ne dana am koo xam ne moo koy génneel boppam maanaam moo ko war a génneel boppam ak koo xam ne nag dañ ko ko war a génneel tolluwaay bi saax lay doon saax nag dañ cee wuute ci boo koy seet ñu war a toll ci kilo am na ne saax matul ñaari kilo am na ñu ne ëpp na ñaari kilo waa màkk yi sax moom daañu dem bay wax ñetti kilo ak ñaari kilo genn wàll xam ne tolloo lay daal moom dafa wuute te bari waaye daa mel ni moom nu muy ëppee ñaari kilo daal dana la jaaxal ndax dañuy wax ne saa mooy ñeenti mudd te mudd mooy nit ku digg doomu nga xam ne nekkul ko tuuti nekkul ku bu defee ñaari loxoom ba mu fees rek mu sotti loolaay benn mudd bu ko defee ba mu yeenti woon nag mooy saa barket ñaari loxo yi ñeenti yoon nag mu ñu ëpp ñaari kilo daal lu mën a jaaxle la moo tax jàpp nañ ne bopp bu ñaari kilo moom mënees na ko sukkandikoo dees na wax itam nag ñaari kilo genn wàll liibar mbaa ñaari kilo liibar kon ku bëgg a def la gën a léemtoo léemtu daal say moomu def ñaari kilo ak liibar mbaa boog ñaari kilo ak genn wàll liibar bopp bu loolu lay doon nga xam ne bu dee yow dong loolu rekk ngay joxe bu amee nag kenn koo ko war a joxeel nag nga wàññi ñooñu nuñ toll nga jàpp ne bopp bu ne ñaari kilo la mbaa ñaari kilo liibar noonu ba mat na nga joxe ko muurum koor mi dañuy seet lañ ëpp a dunde foofa ci lañ koy génne mel na ni bu dee fii moom ceeb lañ fi ëpp dunde kon ku mën ceeb boo defee dugub du doy waaye nag koo xam ni mënoo ceeb boo defee dugub itam mu doy dañoo wute ci ndax mënees na koo joxe xaalis te bañ a joxe ceeb mbaa dugub bu dee waa màkk yi dañuy ubbee ci ne moom sañu su ko joxe xaalis faaw rek nañ ëpp dunde foofu ca génn joxe mu doora a doy boo ko génnee xaalis du doy fii ci waa réew mi ñu ci bari dañuy ubbee ne boo ko joxee xaalis mu doy ndax dañoo bëgg rek ka nga jox tem loru ca mën caa faj soxlaam ci bésub korite bi te boo ko joxee dugub mbaa ceeb it da koy jaay rekk kon nga jox ko xaalis moo gën a noppale ci moom ba ko yonent bi di santaane sallallahu alayhi wa alihi sallam booba wursa xaalis bari woon na lool te moom dafa ràññeel ne dañ ko génnee ci yii te mooy nañu dunde foofa mësta tudd benn yoon wurus mbaa xaalis ña toppoon ci gannaawam ci saxaaba yi itam noonu mel na nekkoon kon soo bëggee lu noppal ki nga koy jox rekk mu bañ sonn ci jaayaat ga mën nga balaa bisub korite bi ñëw bu desee benn fan rekk nga daal koy génne jox ko ko su ko bëggee jaay mën koo jaay ci bis boobu ñu ne suba la korite ndax maye nañu su korite gi desee benn fan baa ñaar nga daal di génne muurum koor mi fi saasa waa tax mu teg ci min xaalibil xuuti ci la ëpp ca dundub ñooña alal mukallafi war mukallaf juróom-ñeent yi benn ci ci la ñuy génne muurum koor ma su fekkee ne moom lañ ëpp jëfandikoo foofa moom lañ fa ëpp dunde wala li wax bele walla lors walla sulut walla mboq wala suunaak saaño walla ceeb wala tàndarma wala reseñ ak liñu wax aqit formas amna ñu ne aqit formas amna ñu ne meewum pëndëx la manam meewum sunguf la amna ñu ne dañuy bele ba nga xamé ne tut ñu jaxase ko soow nak weer ko ba woowu am na ñu ne loolu mooy aqitu juróom-ñeent yi daal luñ ci ëpp dund ci béréb booba rek nañ ca génne muurum koor ma li mu ne war mu kàllaf nag daañu la leeral ne la mu kàllaf mi su ko mënee da ko war a génneel boppam génniwaalal ko képp koo xam ne yoon moo ko teg ab dundam dana ko wax léegi walam tafut du raw nag bu ñu xasee war moom boo ko yeexee ba bisu korité bi jant ba so da nga ami bàkkaar ci yeexe ga nga koy yeexe te du tax nag mu wàcc la te gam xas ko mën rek moom boo ko yeexee ba jant bi so mooy bisu korité bi jant ba so da ci am bàkkaar ba noppi te du tax mu wàcc la ba tey war nga ko génne joxe ko su fekkee ne nag mënoo ko ba jant bi sox ci bisu korité bi wàcc na la faaw fay ga du la war wa aji sa at doy na bi salafi ci lekk daa am ñu wax ne su la wóoree ne boo lebee génne muurum koor danga ko mën a fay kon day war ci yow nga leb joxe mburum koor am ñu ne déedéet ndegam leb rekk la wóoru la boo ko defee nag ci bëgg tuyaaba def nga lu baax rek waaye moom ndegam mënoo ko leb rek nga koy def yaakaar nga ko yaakaar ak mën fay du tax mu war la su yaakaarul ak mën fay nag moom maase nañ ci ne wàcc na ko na moytu di ko leb te xamul boo xam dana ko mën a fayam déet nga xam ne rek nit lu mënut kenn du ko ko teg mënu ko rek wàcc na ko xan nafsihi walis boppam aw man wala ka nga xam ni at xama leel na ko maanaam dundal na ko lusoo man ci lu war mbaa lusoo man ak dundal gu war ak dundal gu war muurum koor mi danga koy génneel sa bopp génneel ko képp koo xam ne yoon moo la waral nga dundal ko mel ne sa soxna moom yaa ko war a dundal doonte sax ku woomal la ba ëppale la it yaa ko war a génneel muurum koor sa doom ju góor li feek muy mën a wóoj boppam ànd ak sagoom ak man-manam yaa ko war a dundal kon yaa ko war a génneel mburum koor sa doom ju jigéen ba ba koy may jëkkër ba jébbal ko jëkkër ja yaa ko war a dundal kon yaa ko war a génneel mburum koor jamono yi jaam amee itam sab jaam yaa ko war a dundal yaa ko war a génneel mburum koor sa ndey ak sa baay it soo amee te ñoom ñu ñàkk yaa ngi war a dundal ba tey kon yaa ngi war a génneel muurum koor koo xam ne nag yoon waruñut ci yow nga dundal ko da nga koy dundal rek ci sa coobare bu la soobee rek nga génneel ko ci sa coobare waaye du la war su fekkee mënoo lépp la la war ca muurum koor ma nag lenn la nga man da ngay génne li ngay jëfandikoo ci bisub korite bi ba noppi gannaaw ba lu des rek nga génne ko joxe moo xam sa bopp dong la moo xam yaag keneen ba ñeneen la ñoo war a joxeel su fekkee amoo loo joxeel ñëpp ba mat bisub korite bi dangay ngay génne li jëfandikoo ba noppi lu des nag nga génne ko joxe sa jaan daal di wàcc dañuy waxtu wa nga xam ne moom lañuy ñu ràññeel ne ca la muurum koor ma di ware wax ji gën a nag mooy bisi mujj rek ci waru koor bu jant ba soyee ca la muurum koor mi ware nga xam ne ku faatu ci njëkk loola nga xam ni waxtu wa jant bay so fukum bok ci wa aduna kenn ko ko gennel amna ñu ne waxtu fajar fenke ci bisub korité bi moy waxtu warga ayaman man nga japp rek li ñu jëk wax ñu wax nak ne waxtu jant bay sox ci do mujj ci woru koor wax mooy waxtu war wa dañuy wax ni waxtu war wa nekkul luy tàlli di wéy gannaaw bu jant bi sooyee rek buñ ci tegee as ndiir bañ ne waxtu sogi moom jàll na gannaaw ba ku judduwaat it duñ la ko war a génneel ndax waxtu wa mu war fekkutoon nga bokk ci waa àdduna la ñu gën a taamu nag mooy boo xëyoo ci bisub korite bi bala ngaa dem ca jullikaay ba rek génne muurum koor mi joxe boo koy weexee nag ba julli ji ba ñëw da nga farlu ci daldi gaaw joxe ko day des ca bëccëg ba ndax li ñu waxoon léegi ne la soo bàyyee ba jant bi soo te fekk mënoon nga ko da ko deful rek danga nga amee bàkkaar ci yeexe gi nga koy yeexe ba jant ba so. def na ko jox nag ilaa xurrin jëm ci gor faqirin kuy aji ñàkk musliman mbir mu di ab jullit muurum koor nag ak jaamu yàlla la kon ab jullit lañ koy jox jullit bu ca loru rek ñu jox ko ko ndax bëgg mu defare ko bisub korité bi ba bañ a ñee keneen bañ jógit di yalwaani di sàkku ji ku ko dimbali jamono yi amee teqale góor ak jaam day jàpp ne jaam moom ab sangam moo gàddu ay mbiram kon loruwut kon gors li ab jullit rek te loru ca te mën nga ne mooy képp koo xam ne amul lu ko doo dunde ci at ma ci amul mucc mu ngi ko sukkandikoo amul kenn gàddul di ko ko defal rek na ko mën a joxe asaka ba tey mën nga koo jox muurum koor mu jàll si ci koor baabu siyaami lii mooy buntub koor